daanoo nekk nag ay gor nekk ay garmi yàgg taxaw ci ginnaaw président Macky Sall yàgg kaa déglu yàgg kaa doole yàgg kaa taxaw sëgg am ñoo xam ne dañuy waas ñun ñi nga xam ne ñooy jigéenam démb ak barki démb 2008 ba tey ñu takku taxaw ne ñun nag ñoom président Macky Sall ba faw ñu koy wax ne tey la ñu gën a taxawal tey la ñu gën a am engagement tey la ñu gën a déterminé te tey leen ko gën a luwaayal ndax luwaaye ko dafa am solo